ñi jittal ci nuyoo bi señ xalif général señ Mountakha di ñu toftal suñu xalifa bu mag bi di señ Modou Mbenda ndax Baye Fall mom ñun ndigal rek la ñu am ngi sant bokki talibé yépp li mbég la ci andal ndax man euh, lu ne ñi ngi koy wax waye man li nga xamni mom la wax doon ko wax naka jek sama kaduk démb doon sama kaddu tay bu ñuy taj nañu jëkke ci man bu ñu lu fekk ma roñ ko ci samay bagage ñu xamni roñ na ko lu ci roñut lepp def nako adé seigne Touba man non la doxé ndax Cheikh Fall nar mom kuko ko dégg xam nga ko ndax man talibé Baye Fall la yakar na ndigal lu mu lu mu lu mu lu mu jëkke rek man ma ci wara jitu ci ndigalal Baye Fall kon lim mbégte la ko def ma ngi sante yalla di sante mam cheikh Fall bo gisé yitam lu ne ñukoy wax ci Cheikh Fall nar man ndigal rek moma ñor dem na ci dem na ci kilifa yi dem na ci Serigne Bass Abdou Khadar ndax euh, li ci li ci sëñ euh, sëñ Muntaxa wax ci suñ sang suñ sang yu baax yooyu jàlloon ba ci sëñ Muntaxa li mu ci wax mooy mooy samay tànk mooy samay mooy samay nopp mooy samay bët. Hmm. ba ndigal li jógee ñu dem euh, waa marché bi mobilisé daan ne Cheikh Fall Nar daanaka marché bépp moom moo ci ëppale comme que moo ci ëppale nag nañ ko jiital ndax buñ ko jiitalut buñ demee di wax ñun mën nañ ñoo bañ a déglu. Hmm. ndax liñ fi yor daanaka du dara. ñu wax ma ko man leen man du dem ndax man ndigal lay wéyee te ku ma xam-xam ma ci ndigal ku nag ko ma xamit xam ne man du ma gàntu ndigal léegi nag man du dem ñu ne ma il faut nga dem ndax yow euh, marché gaar bi yow yaa ci ëppale te yow yaay suñu ndër laay yaay suñu njiit yaay yaay yaay suñu jëwrin ci ci liggéey bi ndax ñun ay liggéeykat lañ comme yow da ngay liggéey di joxe addiya ñuy liggéey di joxe addiya man leen man de bu ma sañoon du dem ñu ne ma nañ dem ba ma demee ci sëñ bas fekk naa fa ay ay nit ay mbooloo ay mbooloo yi euh, sang ñu toog ba ñu toogee ba ma ñëwee nuyoog sëñ Bas ma fa di ko wax lenn dama ko ne sëriñ bi mu ne ma ne ko man de damaa rusoon sax ñëw fii ak si ci yow ndax yàgg naa laa dégg waaye yaakaar naa yàgg naa laa xam ngay ngay sunub sang waaye yaakaar naa ne sa kër li ma fi teg saa tànk bëriwul te heure bu ndigal jógee sa taalibe yi nga am yëpp seen xel day dem ci Cheikh Fall Naar ñëw ma di leen jox ay bagages yoo xam ne ay jumtuwaay yu jëm ci sa ndigal te ñëwuma fi té la wax né la man may Cheikh Fall Naar ndax man dama damay taalibe dama war ligéel liggéeyal Touba wayé nak ñi dañuy samay bokk taalibe té ndigal nak da joggé fo xamni ah ñom dañ ma cee yaakar ma and ak yow ndax gis nañ ni man lama fam ñom man man man ma leen ci ëppale buñ joggé du dox té man jogguma day melné ne manam ah, dama dañ ma fi bayyi wala dara wala ñom lañuy dox du soti mané ko buma sañon sama tanki, duma ko fi tek ndax man birna ma ni ndigalal sëñ Touba Serre Fall mooy ndigalal sëñ Touba ndigalal maam Serre Fall mooy ndigalal sëñ Touba te Serigne Touba euh, Serigne Touba maam Serre Fall du ko jox benn liggéey la ko digal mu di ca mu di ca arrière dara wala mu di ca yokk dara mbaa mu ca wàññi dara te man bu ma de mu ne ma ne ko sama lool ci la ñuy jëkkee tàmbali la ma fa am nag toll na ci 400 millions. ndax 200 millions laa ko waxoon ndax booba dafa amoon yenn yoo xam ne sax jortoon naa ni. ñoom duñ ca àgg waaye nag booba itam taxul ma ma ma jortu ni sax yooyu dana ci àgg waaye jortoon naa ni sax danañ ci àgg ndax nee naa leen mbir mi moom dafa tàmbali te seerafaal dong moo xam fa mu yem te ndigal la loo xam ne fañ ko digal fa mu yem ak fa mu tàmbalee du ci yokk mètre du ci wàññi mètre man loolu xam naa ko xam naa Baye Fall léegi nag man li nga xam ne moo ci sama sama xalaat mooy damay jégglu ñëw bi ñëw bii mu naa ma ne ko dama koy jégglu li may wax sëñ Bass dana ma dégg wallaahi azim lii aw ma ci lu may naqari bima ma bagasi it bagage yi nga xamni mom la fi am wona naa Modou Fall Fall wona magay Ñang mi nga xamni dama ko xamoon ci Serigne Cheikh Jëmb muy jawrin ma woko niko man de ndigal li rafetlu naa ko waye nak dama am bagage yo xamni dafa bari ma ngi roñ nak ay camion di yobbu waye xamna ni lepp du fi jeex ndax matériel yi amna pour yo xamni amna étage yo xamni fa monté ay pour ay nit ñu bari di ci liggéey sama ëttal sama place bi ay nit ñu bari dañ ci liggéey waye matériel bi bari na bari way go xamni jégg na dayo buma sañon nak man duma ag ci seigne Modou Fallou Fall sax diko wax dara waye nak nga nga jotal ko lolou ne ko nak man lepp cheikh Fall rek la ko def maanaam lepp mbette la ko def ndax man Baye Fall la waye bagage yoy bu don sama sago du ngeen fa fekk dara lo xamni luy xetok lo xamni da leen di gàllankoor ndax man Baye Fall la te beuguma ngeen deg dara ci sama place bi wala sama keur yi ñu ni dama nek ab talibé tax ngeen deg lola wala ngeen bako fa legi nak jotal mako ko lu ma la ci wax lu la ci wax man lolo doyna ma ba ma ko ko jotaleet booba laa ko gëjëwoo booba laa ko gëjëwoo ndax moom it xam naa ni la am kersa sax dem jàkkaarloog sëñ euh, sëñ Modou Fall Fall wax ko ko euh, sëñ Moussa Mbar wax ko ko moom xañ na moom it la ma dal foofu moo ko dal te it ñun ñëpp ay ndigal lañ te dama ko woon loolo soo ko jotee lu mu lu mu ca wax rek lu mu ca digle rek noonu la waaye man daal lii sama gàcca manam moy mu ñew fekk fa ay bagage yo xamni da leen di baré ñu ni li bagage cheikh wal nar la camion bi diko touser wala muy touser dara lo xamni xagna samay samay matériel la ñen ñi diko gisé ni man daf ma nakari li luma am bekté la ma ngi ni dama tak sama dar tak sama laxasay and ci liggéey bi ma ngi ni sama kër sama bagage yi ñi ñi ñi ñi ñu jëkke loolu dama neex ndax bañu woté tay sama étage bima bima mujjé tabax ca la jëkke ni leen digal li kenn duma ci jitu xaaral ma jëkk ci ba gis ni ma jëkk tambali hmm. sama kër ñanga fa ak sama yenen bagage yëpp waye gisuñu ma fa may topalé matla wala may topalé euh, ànd mbaa may topalé palaat wala may topalé weñ ndax ndigal li seigne Touba moma moma ko eppal doole lepp seigne Muntaxa ndigalul seigne Muntaxa li moma gënal lépp moo gënal bakkan bi barké mam cheikh rafal rawati bi mu ko joxé Baye Fall yi ko ci seen loxo kon man ndigal loolu rek man mom lay wéyee tey ak ëlëk sama jëm ji bu ko laajoon Baye Fall giñ na ci suñu borom dama len di wax jëkk leen ci man terme waaw jëkk leen ci man terme ndax man aduna bëpp xam nañ ma Italie France fu ba bitim rew fo taxaw bo joxe ñaari joge boo nee Cheikh Fall naan ñu xam nañ ma ta Touba man lolu luma fi señ bi séddale kon li dama ci def mbekté ndax buñ fi tojon jéeg fi sama étage étage yi man nañ ni señ bi dafa dafa dafa dafa dafa ségrégation wala dafa am lu mu dox ta mo ñom dañ leena diggal lañ leen diggal Lola duñ ko romb duñ ko wess amuñu ci nak ma samba amuñu ci ma demba dama ne len won bu bokkul ci ndigal li sax jekel len ci man bañu xamni li man mako wara jité wallahi al azim barke mam Seera rafal ndax man talib borom ndigal la ta talib borom ndigal ku don kune da nga da nga don ci mom dara ndax ndigal ndigal la ca nek ndigal lolu mo law ba aksi ci talibem yëpp ta man noona laay doxé li nak ku ko naqarlu baalu ma bëgg ñëpp am ci mbékté barke mam Seera rafal té li ñu def ko ak yokku def ko loo xam ne mooy li gën ci nun tey ak ëllëg muy ndigal loo xam ne ndam la ci suñu Baay Faal gi gépp barke maam Seera Faal maa ngi sant jëwriñ ji di sant sëñ Amdi mi nga xam ne moom it jàmbaar la ci yoon wi trop di jëwriñ di sant jëwriñ yëpp li ko tàmbalee ci sab sëriñ ba ñëpp rek ñëpp maa ngi leen di sant ba ci ñëpp rek ba ci euh, yi nga xam ni dañoo jëfe ndigal ànd ak ñoom